lii ñuy wax aide à la presse 2022 2023 li nga xamante moo di rapport bu daal nay génn mën nañ ne xaalis bu takku takku takku daal di siy génn xaalis boobee nag lañ leen bëgg a wax organe bu nekk ñaata nga si gagné buñ boolee ñaari année ñaata nga am CFM moo jiitu yeneen kër yi mën nañu topp si xaalis boobee nag takku na takkuwaay boo xamante ni président Macky Sall ñëwaatoon dolliwaatoon si yeneen 40 milliards yoo xamante ni yu ñu waroon a fay impôt mu daal leen koy jéggal njëkkee ko ak fi nga xamante ni moo groupe Youssou Ndour boobu di ICFM maanaam groupe Futurs Médias moom moomee mën nañ ne 162 millions la si amoon un média am si 113 millions des médias am si 97 wal Walfadjri am si 90 millions 7TV am si 75 millions suñu làmb ak stade am si 60 millions euh, Sud FM ak euh, Sud Communication am si 57 millions fi nga xamante moo di Seneweb am si 51 millions Dakaractu am si 48 millions euh, leeral am si 41 millions. ministre bi nga xamante moom la dénk wàllum communication télécommunication numérique yoru wàllu yoru wàllum presse bi moom moom la doon na jàkkaarloo tey taskatu xibaar li mu wax na si li nga xamante ni moo di date fiscale yi nga xamante ni moom la presse bi war a fay nee na ki nga xamante ni moo di ICFM war naa fay 40 pour cent si li nga xamante ni moo di lu ñu mel. RTS 28 pour cent des médias war a fay li nga xamante moo di 11 pour cent les soleil war a fay 10 pour cent si fàttali nag ki nga xamante moo di Thierno Bocoum moom dafa waxoon ne nag li nga xamante ni moo di date fiscale yooyu 75 pour cent yi ñi nga xamante ni moo di les soleil APS ak li nga xamante ni moo di RTS ñoo war a fay li nga xamante moo di 75 pour cent yi di 33 milliards. kon Macky Sall nag yaakaar naa ne bu jëlaatee 40 milliards de dolliwaat ko si mu waroon nekk impôt boo xam ne bu ñu waroon dugal si askan bi la ñu waroon si tabax hôpital tabax ay tëli. tabax si leen ak leen loo xamante ni Sénégal dinañ ko mën a jëriñoo ñu nekk si àll ba dëkk si ay dëkk village yoo xamante ni amuñu ndox mu ñu naan teen yoo xamante ni gudd na guddaay goo xamante mara di taal di jóg fajar di dem di rooti xaalis boobu ñu mën ko jël dugal ko foofu dugaluñ ko fa ba noppi ñu ne leen koy jéggal gouvernement bu bees bii di bis bu buñu leen baalee li ñu mel duñ leen ko baal mukk mbaa yaa ngi waañ màggal gi bul fàtte abonné tey aimé vidéo bi